Thank you. mu ngoog euh, jaaga la ñuy seen noonu ñu koy dugal ci oto bi gis ngeen ko habillé en noir jël col gi daal di koy muuroo moom lañu ñu seen noonu waaye macha allah. yalla may nako dal yalla may nako dal bu baakha baakha baax ko euh, mu xool gu mujju domam ki nga xamanteni ni sori won lol ci mom jaaga ngi noonu di dugg ci ci auto bi gis ngeen ko ci auto bu weex bi ñu indi won ko mu xol image triste lu metti metti na ba fu metti yam di ñaan yalla doli bu baakha xolu muñ gi ci barke suñu sangu bu tedd bi metti na yàlla suñu borom bu bu nammee jàmm dafay nangu ànd ak muñ ak dal noonu la nemmeeku rekk nag ci ci Ndeye Fatou mu daldi yokk ngëmam dolli courage mu mi ngi noonu mi ngi noonu image yaa ngi noonu yéen ngi koy seen metti na metti na waaye lu metti la ñuy muñ seede yaa ngi noon di jub ci jàkka ji nday faatu jaaga moo nekk ci oto bu weex bi ndeysaan metti na metti na seede yaa ngi noonu di jub ci moom ñu ngi koy seet ay seede yu boroom këram la jot noonu ay seede yu boroom këram gannaaw ba ko way juróom bu jigéen xoolee xool gu mujj mi ngi nii di dem day faatu jaaga ci oto bu weex bi xanaa di di ñaan rek yàlla suñu borom dooli ko xolu muñ ci barke sang bu tedd bi waaye tamit boroom këram ma ngay seede mu ngi dégg ay kàddoom yàlla bu ko yàlla bu ko cat jiitu fa mu jëm ci barke suñu sang bu tedd bi mu ngoog mu ko gisandoo image yaa ngi noonu Ndeye Fatou Diaga doon gisanteeg gisanteem bu mujj ak doomam jii di Momy Seck nga xamante ni moom la ñuy ñàkk ci ci ci guddik mercredi démb jàpp fajaru tey 4 heures du matin mu nekk situation boo xamante ni bu metti tristesse rek lañ fi nemmeeku mbooloo mu takku waaye tamit way juróom dal na macha allah di ñaan yàlla dolli ko xolu muñ ni nga xamante ni noonu la noonu la ko sunu borom bëggee noonu la ko nangoo. témoignage yaa ngay jub ca jumaa ja nag ñu ngi gis boroom këram ma ngay wax Bougane Gueye Dany di xam le ni boo ko tegoon place dem na koo xamante ni xamoon na moom mooy kan te it jàppale na ko ci lépp wax dëgg